التي اختار التي اختارت الهيئة المشرفة على مسجد مسالك الجنان تنظيمها مسالك الجنان تنظيمها في هذه الأيام المباركة من السحر الكريم عملا بسنة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام في إفطار السائم وإحياء مشارع الأخوة والمحبة والتسامح التي يجسدها هذا السحر الكريم alladi awlaa lahu mawlaana Cheikh Ahmad Bamba inaayatan kabiratan wa atabarahu xayra dayfin yaxullu bihi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bidaa adadi asxaaba saadati wa samaaxa laa yasuudu laa yasuunii fiiha fi xitaami haadihi lkalimati ilaa an ataxaddama bi jasili sukuri wa asiimi l imtinaan ilaa saydi alxaaji Mbàkke Faye ala juhudihi alkarima allati basalaha min ajli injaazi hada almashruc alislami alkabir munsu ayaami alxalifati arrahil asaydi Mouhamadou Lamine Bara wa axihi asaydi Cheikh Sidi Almuxtar rahimahumullah rahimahumallah wa radiya anhuma atatamala bi tawfiqin min allahi fi ahdi alcheikh Mouhamadou Almuntaqa xafisahu llah wa raa wa qad xaqaqtum بذلك أمنية الشيخ القديم التي عبر عنها بقوله بناني الباخي بناء باخيا بخير هدم للجنان راخيا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi maa ngi yëkkati ay kaddu yu gàtt muy kaddu yoo xam ni mi ngi jëm ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa ak jëmm ji ko fi teewal muy seex Mouhamadul Bachir ak mbokkam yi mu bokkal jataay bii toog maa ngi fi ñëw ànd ak sëriñ Mame Cheikh Mbacké bu ay yes ak sëriñ Abdoulahi Dia ñëw fi ngir teew ci woote boo xam ni sunu xarit sunu wëllëre ak Seydi Mbacké yu fay moo ko woote weer wii nag day weeru sëriñ Touba ndax yàlla dafa wax ci alxuraan ni sahru ramadan alladi unsila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinaatin min alhuda walfurqaan fa man shahida minkum shahra ba aaya ja jeex sunu borom waxal boppam ni assiyaamu lii wa ana aji si bihi koor man maa ko moom te maa koy fayal sama bopp sëriñ mbàkk yu lii nga def delloosiwaat nga xolu murit yépp tooyalaat nga ko ndax isaa arada allahu bi abdin xayran fata baabal amal wa axlaqa alayhi baabal jadal yàlla kum na ma nar a dalay ubbil bunt yiw bunt yiw nag weesuwul ñu ni la kaay fab la yëkkati la teg la ci bopp murid yi ngir nga liggéeyal Serigne Touba Serigne Touba ñaanoon boromam ni ko waqti xawaïj allazina daamu fi xidmati wahab lahum maaraamu yàlla yàlla nga faj aajo ña nga xam ne dañoo sax ci dima liggéeyal wahab lahum maaraamu te nga may leen dañuy sàkku te liggéeyal Serigne Touba minal mahdi ilal lahdi ndokk yàlla bi nga ko xamee murid yépp amul amoon sëriñ bi bëgg a rek comme ni nga ko waxee bëgg laa sëmbaxtal ci boppam moo tax mu fab liggéey bi teg ko ci loxo murit yëpp nag nangul loxo képp kuy murit te yaakaar sëriñ Touba wala nga bokk ci sëriñ Touba cër bii la sëriñ bi jox nangul nañ la ko ndax damay wax ni nit mën na nax benn génération waaye ñaari génération ñetti génération kenn mënu leen a nax <laughs> bu may wax génération nag mooy sëñ Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké yi moo la tànnoon doy loolu boppam teg la fi sëriñ Sidi Maxtaar ñëw nga ànd koog moom juróom-ñetti at sëriñ Muntaxa ñëw yeesalaat loolu kon li muy tegtale yow fi nga teg sa tànk foofu la <laughs> xamal ni murid yépp seen pas-pas ak seen engagement mooy jàppale la mm-hmm. ba mission bii ab tàmbali rek la ndax liggéeyu sëriñ tubaab bu jumaa jàllee am na yeneen yu ci war a topp te yooyu yëpp ñu ngi ñaan ci barke Cheikh moom luy baara nga àggale yëpp Cheikh Mamadou Bachir nañ ci sa jataay cër bii nga xam ne yàlla jox na la ko nga yor kàddu yoonu murit képp koo bokkal Serigne Touba nangul na la ko damay wax ni mënees na laa mag waaye kenn mënu laa gën ndax jikko la ñuy gën a nit te jikko li ci ëpp solo mooy yàlla bi muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu ko wa innaka la ala xuluqin azimin yow de yaa gën a kawe ñëpp jikko bi yàlla it di wax ci alxuraan ni yow ma laa yanfau maalun wala banuuna illaa man atallaha bi qalbin salimin xol bu rafet tax te kenn gënu la xol yiw nga baax nga mën ngaa joxe cër te damay wax ni ku mën a encaissé nga te jamono bi ñu toll la way ko a boo xoon ni laa yaktumu sirra illa kullu si sixatin fa sirru inda xiyaari naasi maktumu yàlla buy denc ay sekkereem di ko jox koo xam ne buñ ne lu ëpp rek nga daw bàyyi ko fa da koy jox koo xam ni buñ la doon tër di fab jaas di ko dawale ci sa baat doo yëngu doo raf te yow fa tabaarakalaaw capacité boobu yàlla defal na la ko sa alaaxa bi doxoon nag diggante Serigne Touba diggante Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ak sëñ Abdoul Khadir bi Serigne Cheikh Mati lay ñëwee da ko gën a feddali ndax Serigne Abdoul Khadir Cheikh Mouhamadou Lamine Baara dafa am fu mu ko tegoon bëggoon ko lool. kon boo demee ba sëñ Mouhamadou Lamine Baara jox la cër bi Serigne Sidi Makhtar ñëw feddali ko. Serigne Mountakha ñëw gën koo dëggalaat boo wootee boo dee ñëw ci jataay say mag rek ngay àndal te boo ñëwee ñu jox la cër bi nga moom loolu jikko la am na noo xam ne boo ko doxee woon murit yi li lam seen i tànk lamul seenum xel te bépp murit buy dox bu nekk Serigne Touba def na ci yow fulla ak fayda ak jom ak fit am na noo xam ne boo ko doxee boo bu jógee doo gis kenn kon ndokk yàlla bi la yàlla tegee ci loolu di nuyu imam Basirou Lo di nuyu sama kilifa fekk naa fa muy Serigne Cheikh Bara Abdoul Ahad mooy sama kilifa kaddu gi sax waruma ko woon a ndax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 ñu ngi fedd di suñ kóllëre ak yow yow suñ diggante ak yow li xale yi wax dawuñu ci saala yaayi ndeer foo soo da ñu gis loo wootee da ñu gis loo nekk ñanga ca ndax ñun sëñ Tuubaa ñor te yaa ngi liggéey sëñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala Mbàkke lii moom foog ma dagg ko def ko tiktok tiktok foog ma tiktok ko barke sëñ Tuubaa mu mel ni sëñ Mourtada Bousso sëñ Ablaye mi ngi ci jotaay bi ak sëñ Dan Fall ngi fi